dëkk bi dëkk bi xale yi vingt yi unième siècle dañoo feebar billaay xale yi vingt yi unième siècle dañoo feebar sëñ bi maanaam lu amatuñu nu ñuy jomb quoi xam nga nit ki di nga am bés boo amee loo ragal a def bés boo amee fit di nga ko def bés boo rusee dara bu rus bi eh, kerse bi dañee rus bi dañee di nga ko def mais ji nga soo jombee def dara soo jombee def dara non doo mus a def doo ko mus a def jomb boobu noonu na moo ñu réer fu mu toll nii billaay wallaay surtout si xale yu musiciens yi nii non sëñ bi gars yi dañu sonal billaay lii amul ay wax maanaam di nga nit soo nekkee si benn affaire rek yaa ngi foofu boo soloon nu solu góor kenn du la wax dara mais da nga solu nu solu góor jigéen comme góor jigéen nga est-ce comprendre nga boo defee taatu neen dox dañ xam ne ñëpp taatu dañ xam ne taatu nen nga def ku gis nen nen ne nen a ngi mu munoo du sol yeneen solo yi ne naan ay non est-ce que du góor jigéen wala mais ay góor jigéen nen boo yooyu yëpp nu booy yooyu noonu ne booy waali seg yi la si lobby boobu nañ nekk si lobby boobu noonu nañ nekk te ji nga booy ñu de booy di dinañ def lu gën a pur waali pareegul dina def lu gën a pur di nga booy ñi ay Ouzin Keita nii ay Pawlish la xawma loolu apporté ñu Sénégal dara ba si Wally Seck lan la ñu apporté Sénégal lan lan la Wally Seck apporté Sénégal lan la Wally Seck wéy li nga xam ne njëriñ na askan lu du sama papa sama yaay sama maam mais chata fakka ñi buñ dañ mais ñii xoolal moo tax di nga fu mu toll gën a métti si ñun di nga melentaan bu mu rey bu matt la dugg si biir melentaan bu yàlla di mbugal ñun ñëpp lay mbugal lu lépp ngir xaalis aduna alalu aduna mais ñun bu ñu jàpp ñun ay ñun dañu gëm yàlla xam nga ñun ay ay ay jullit neen mais lii dafa garaaw lii daf lii xoolal dañ ne luy raam si ñag bi la jëm nee na xoolal mi ngi si biir ñag bi ba tabax fa kër parce que booy de lii day gën a pur lii nii day gën a pur di dem. waaw salaamaaleykum sëñ bi ñoo leen di ziare bu baax a baax ah di leen di xamal moom li ngeen wax ni dëgg ci lañu war a wax. mais Sénégal daam loo xam ne moo ko yàq ndax ñun dañoo gis léegi euh, maanaam ñi ñuy wax na ay woykat lañ ñoom ku génn rek foog nga ne mbon ca nga war a jàllee wala ci affaire um góor jigéen waaw ci discipline ngeen wax nag waaye xam naa ne discipline du dindi lii te lii état bi du ko dindi man dama jàpp ne il foog nit ñi jóg nit ñi peuple bi il faut ñu jóg fexe dab gaay yi comme ñii nga xam ne dañuy wax ay woykat lañ di def affaire yoo loo xam ne mën naa yàq suñ njaboot ñu wàcc seen kaw mais lii du deñ lii du deñ buñ ko jàppee nii du deñ di jégalu nag ci kàddu yu gudd yi ko moo tax ma dagg ma dagg vocal bi moom bëggoon naa leen comme ñi useekee da ni ñaa wax ne wër na wala wërul jërëm dalu ko am dof dina wut xaalis ab dof dina wut xaalis ñii nag dañ leen war a wax li nga xam ne mooy ci amul làkk-làkkal ay ñii ma gis génération bii ma gis ñii ñuy wëy ñoom ñëpp ay góor jigéen lañ boo leen défendre boo leen jegee ak nu mu mën di demee ñoom ñëpp ay góor jigéen te ku leen waxul loolu affaire naa fekk ngay wax de parce que gis nañ mandarga yi te nee nañ boo leen boo gisee loola ba mën nga ne ne accuse lii ñu gis ñuy def jëfu góor jigéen la am nga droit ne ay góor jigéen lañ ñoom ay góor jigéen lañ gars nañ wax loolu waa kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax la ñaanal jàmm ah, man moom maa ngi tudd Lamine Sarr maa ngi dëkk euh, Joal mi actuellement nii maa ngi Espagne demb temps yëpp damay déglu seeni vidéo yu am solo yi demb sax maa ngi seetaan benn vidéo booy wax ci affaire Ouzin Keita affaire góor jigéen yi affaire yooyu ma koy rafetlu même man mi bitim réew la bitim réew fii laa nekk mais. Europe maanaam seen luwaay suñ ko bëggoon suñ ko indi woon Sénégal ñun Sénégalais nañ xeex reyante suñu biir ba jeex te tubaab bi dañoo bëgg a ñun gis nga ñoom ñu nekk Europe di ñu yar di ñu yaral suñu doom yi nekk Afrique te loolu la ñuy waaj affaire góor jigéen ñi man mi dégg naa ak ay tubaab dañu ma ko proposé ba sonn am na benn tubaab rek bu ma doon déggal su Facebook bi Amérique la nekk daf ma ko proposé ba sonn même fi Espagne fi loolu moo ci ëpp. dañ la naan kaay fu def la ngay former ay nit seen dëkk ñu lay financer xaalis bu dul jeex mais ñoom du ñu feeñ ñoom du ñu man mii moom dund naa ko te am na benn góor jigéen bu nekk Saint-Louis toog naa ba mu envoyé message su Facebook naan te fu mu commencé mooy am nga soxna ma ne ko mu ne ma xale bu ndaw amoo soxna lay def ma ne ko non damay jàng mu ne ma yow ku tol ni yow nga naan ma amoo soxna seet si mandarma may la suma doom bu jigéen ma ne ko ah loolu de neex na mais instant yi nag damay jàng amaguma temps boobu mu ne ma soo ma seetee commencé wax wax yoo xamante ne mënumaa comprendre ma defal la yu baax yu neex yoo xam ne doo ko rëccu affaire yooyu te góor kilifa la si messanger bi moo tax dem bi ma gisee seen thème bi ma ne ah xaaral ma jéem cee kii ma jéem a jël numéro bi di partager gars kat ndax ñun ñii bitim réew lañ nekk mais yenn saa nga gis loo xamante lay yéem sax waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di ñaanal sit bi yal na jëm kanam ñi ko fondé xalaat ko it mu doon xalaat bu rafet yal na yàlla guddal seen fan ndax lii lépp maanaam yéen du seen bopp ngeen ko defal mais ñun ngeen ko defal ñun askan wi ndax des fois dañuy bëgg dugg ci lu bari bëgg waxtaan ak nit ñi waaye du ñu am fu ñu koy waxee wala fu ñu jaar ba wax ko xalaat bi ngeen am nag ba indi taxawal sit di ci liggéey ngir sénégalais yi gis ci seen bopp yal na leen yàlla gën a taxawu waaye su ma jógee ci loolu damay ñëw ci mbir Ouzin Keita Ouzin pour man Ouzin deful dara soo déggee mën a deful dara ay waajuram ñoo def dara ay mbokkam ndax Ouzin du bàyyi ma du mala nit njaay la waaye ci jàngat bi ma ci def mooy ay kilifaam dañoo fàtte ne bés dina mës ñëw cousin yàlla na yéex yàlla na yéex ñaanaluma ko ko yéenewu ma ko te lépp lu ma ko yéene ci lu bon yàlla na këpp ki sama kaw ma wéetewoo ko waaye lépp lu ma ko yéene ci lu baax yi ndax doomu jàmbur la yàlla nañ ko bokk waaye dafa am lu may wax mooy bés dina mës ñëw ñu yàlla soxla ko jël bakkanam ndax dund ak dee ñoo fi ne waaye su boobaa ndax bàmmeel xat na xat koo xam ne nii yow dong yaa ciy tëdd te doo ko bokk ak kenn cër waa cër yàlla du ko jël di ko faye doom wala mu jël cëru doom di ko fayee waajur ku nekk ak la ngay liggéey ak ca la nga def la yàlla di la àtte ci la lay te senegal tàmm nañ benn mbir gis lu ne fang ñu war cee wax war cee def war cee dox waaye day am ñu taxaw di la défendre te loolu ñaaw na rafetul te waajuru Ouzin nag kenn waxul Ouzin bu mu woy kenn waxul Ouzin bu mu fecc ndax bëgg-bëggam la waaye na def yëfi góor na sol lu yiw na changer comportement am su bëggee jëm ca kanam gis nga ñi koy jay naan day dindi stress ñooñu bëgguñu ousin dañoo bañ Ouzin parce que ku nekk ku nekkoon ñoom sa doom ku mu doonoon sa doom jikko ji nga xam ne Ouzin Keita yor na ko doo ñaan yàlla mukk sa doom yor boobu melukaan ak boobu jikko jikko nag dafa bari façon waaye góor bu demee bay def yëfi jigéen di jël xeesal di ko diw ci sa yaram di crayon di puudaru kooku doona tut góor kooku saay-saay lañ ko mën a tuddee jot na nag réew mi ñu taxaw xoolaat suñu bopp di dellu di wax tamit suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi ñoom it am nañ ci part de responsabilité li doomu aadama yi di bañ a dégg ndax tey bu ñu xëyoon jël benn yoon Tiwaawoon wax Njaasaan wax Tuuba wax Laayeen wax ba ca chrétien ba wax ndax ñoom la fi yàlla teg bu ñu waxul kenn warta wax ndax seeni maam ñoo ñu xeexal ba ñu am ndam fii ci senegal ak feneen ak feneen doxal lislaam doxal diine kon naam am na yoo xam ne bu dee dox ci senegal gii kenn waru koo noppi war nañoo mën a woote kilifa yi ñaafteef yi nga xam ne ñu ngi koy wone ci télé yi di ko wone ci li nga xamee ne baaxul ñu artu ñu artu wax ndax ñoom déggal nañ leen waaye yàqante der bi bari na Sénégal waxante lu ñaaw bëri na Sénégal soxoralante bi bëri na Sénégal te mën naa ñàkk te ñun ñëpp penku lañ jublu ku ci faatu penku lañ lay lañ lay jubale suuf moo lay sàng ku dund di nga dee kon baax na it ñu sangaat suñu bopp xoolaat suñu judd raxasaat suñuy xol ndax ba ñu yàlla defee ñuy góor jox ñu awra jox ñu lépp ñu wër di wut ay jigéen di wër di war a jur njaboot boobu la yàlla wàccoog ñun waaye ñun ci boppam ñoo jël suñu yoonu bopp boo xam ne ni kenn xamut lu mu doon nañ xoolaat nit ñi xoolaat seen defaraat seen i toogu toogukaay xoolaat biir kër kër yi xoolaat mbedd mi ndax jamono ji day gën di jaxasoo rek dafa mel ni seetlu suñu bopp yàlla ju junj na junj na junj na wuyuñu ko na woote na wuyuwuñu ko kon ngir yàlla nañ dellusiwaat xel yi ak xalaat yi xàccendoo dóorandoo. waa asalaamaaleykum uh, numéro bi dama ko gis YouTube uh, ma ne xaar ma jël ko wax ci sama xalaat vraiment li ngeen wax. ci Ouzin Keita dëgg la parce que aussi am na melokaan boo xam ne artiste yi duñ ko war a mën a wone parce que dafa nekk ñoo xam ne ay royukaay lañ société bi dañuy xool ci ñoom xale yi di xool ci ñoom ñu nekk ñoo xam ne tey ni seetu lañu ku ne ci gis sa bopp kon dañu am war am melokaan bu boo xam ne dinañu mën a apporter dara société bi man damay wax ne ma ne artiste dafa war a nekk royukaay mais royukaay bu baax ban royukaay lañu wax royukaay bi nga xamante ne bu ci xale yi jëlee euh, dinañu mën a gis lu baax mais euh, góor warta sol benn solokaan bi nga solu bëggeen ñu lay jaawale jigéen loolu moom nekk na loo xam ne rafet lu wuj ko parce que déjà ci euh, pays boo xam ne pays islamique lañu nekk réew diine réewu lislaam réew yoo xam ne nit ñu baax ñëpp jaar nañ ci donc am na loo xam ne duñ ko mën a rafet mooy jëppalu rek